Fête de fin d'année, une seule adresse pour respecter le dress code. Pour s'habiller chic, classe et glamour, Kër Ndanane vous ouvre ses portes. waaw ubbil na leen ay buntam Kër Ndanane shop habillement accessoires ay marque italienne ak décembre ji boo duggee Kër Ndanane ba génne ñu xam ne dëgg nag différence am na yow mi seet sac bu am classe sac de marque sac bu glamour yaw mi nga xam ne nag ay robe ngay wër ay ensemble combinaison ay chaussures de marque façon boo leen ci bëgg ndaanaan butigu ndaanaan yi butigu star yi fii rek la kon nag def leen ni moom Erika amul benn secret fu dul kër ndaanaan fu mu génnee fu nekk marqué la différence adresse bi Rufisque arrêt Sonadis derrière pharmacie Astel téléphone 33 836 54 23 wala 77 831 82 30 wala ngeen contacter ñu sunu whatsapp 0039 34 53 24 15 02 dama ne du bandi sañ se rek ngay wër kër ndaanaan moo lay jox li nga bëgg Amis téléspectateurs de Kendalan TV bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Café Show Plus Café Show Plus nag dooreeti na ci lundi bi bon début de semaine à vous qui nous suivez di wax ne fi mu toll euh, ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi kilifa aada yi di ñëpp ñi nga xam ne ne actuellement euh, ñu ngi ci lal hôpital yi ñu fexe yàlla def ñu def tout ba ñu mën a jug ci jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi yàlla def ñu génn ak jàmm. Euh, ci kaw loolu tamit balaa may euh, gën a tàmbali damay jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu suivre si euh, suñu chaîne YouTube Kër Ndanane TV di wax na fi mu toll nii ça fait plaisir yéen seen jëm bopp ñun ñu nekk fi toog ci plateau fas yéene bégal leen ci lu jëm ci wàllu wàllum actualité ci lu jëm ci wàllum. social lu jëm ci wàllu wàllum li nga xam ne ne mooy politique parce que dañ naa ne actualité bi moom li ci nekk ci boppam moo bëri parce que Euh, gis nañ ne tey yeewoon nañ yeewu boo xam ne ne mën naa ne neex na neexul mais euh, ginnaaw loolu ci li jëm ci actualité bi kii li nga xam ne mooy euh, Boubacar Diarra moom moo ñu fas yéene ñëwal ci actualité bi moom il est à côté ah célibataire la dañ koy comprendre <laughs> célibataire bu mag Tim See la bokk te ti waaye Tim See fi mu toll nii bi day métti si ñoom quoi Tim See Boubacar maa ngi la ziar. delloo ziar. baa yaa ngi am tawfeex. maa ngi sant alhamdulilah. mais Tim See nu mu demee noonu tey. daal bokk na ma Tim See ngi. en phase. <laughs> de mariage donc voilà. en phase bi mën na nekk 2023 comme ni mën na nekk 2024. ñaar ngay takkandoo wala benn. non naa nekk benn rek. <laughs> te lu bàyyi la que ni mbokk téléspectateur waaw c'est un plaisir c'est un plaisir vraiment de partager ak yow plato su ne plateau bi. Mhm. mbégte lay doon et di nuyu le grand entrepreneur. Mhm. di nuyu aussi non nos chers internautes ñoom ñi nga xam ñoo ñuy dooleel saa su ne. Mhm. vous qui nous motivez, qui, qui, nous donnez la force, qui nous donne plutôt la force d'aller euh, chercher l'information et di leen ko indil euh, saa su ne. Mm-hmm. nees tuut euh, ñu ñëw ci li gën a fës ci actualité yi. d' accord ginnaaw balaa ngay ñëw ci li gën a fës ci actualité bi di leen wax ne tey suñu invité spécial mu ngi tudd ba Camara ñu fas yéene waxtaanee li jëm ci wàllum entrepreneuriat mais ginnaaw. ñuy xuusandi ci li jëm ci wàllum actualité bi damay bàyyi ki nga xam ne mooy Demba Camara mu nuyu mbokku téléspectateur Demba ziar naa la. Ah, delloo ziar bi eh, tey da ngaa sañ ah, jéem a taxale rek def ni yow jàppale la tuuti. Eh, da ngaa bula mu bula de. waaw gis nga est-ce déggoo wuñ ko. <laughs> ay ba bàyyi rek euh, jaajëf maa la ñuy jaajëfal bu baax a baax di la remercier tamit si euh, invitation bi. di mm-hmm. nuyu itam mon très cher Diarra bi nga xam ne moom fekk si plateau bi. Mm-hmm. di nuyu mbokk internautes ñëpp ñu ngi ñuy suivre donc juste pour partagé pas mal de choses pour euh, ndaw ñi njëriñoo si mais tam képp ku ñuy suivre rek man si njëriñoo d'accord xam naa ne njëriñ bi moom dina dina dina yaatu parce que wàllu entrepreneuriat man sama jëm bopp dama ko bëgg mais jar mm-hmm. dama lay bàyyi ngay li ñu lu gën a fëcc ci actualité bi waaw waaw waaw loolu daf may daf may neex juste euh, balaa may commencer je pense que tey ni ñu yeewoo neexul neexul parce que mm-hmm. je pense que ñëpp yëg nañ li xew foofu ci Saint-Louis. Mhm. donc euh, depuis cinq heures du matin ba léegi rajo yeeg télé ñëpp a ngi ciy wax. Mhm. et ci euh, ciy profiter di présenter euh, nos condoléances émues aux familles éplorées et aussi ñi nga xam ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu jóg si jàmm salaam mën a dox seen soxla. Mhm. muy tey benn accident bu xew foofu ci sàkkal Sakal nekk diggante Saint-Louis ak Louga. et ba fi ñuy wax ak yéen li ñu jot am ci nombre de morts toll ci dix neuf dix neuf morts et plus de vingt blessés. donc mu nekk lu tiis lu lu lu lu metti te soo leen fàttalikoo fan yi fan yi ñu génn ci ginnaaw foofu ci Kaffrine mm. on avait la même chose demoon ba am 40 donc mu nekk loo xam ni doy na waar doy na waar ci euh, transport mm. deux semaines après même chose à Saint-Louis donc mu nekk lu metti vraiment mm. di jaale ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ci ñàkk ay doomu aadama mais aussi ñu tëdd ci lal hôpital yi yàlla xareel na euh, yàlla yëkkati leen ci jàmm ak salaam donc suñu jógee foofu dañuy ñëw toujours ci Louga Louga ñu ñu gis ni président demoon na fa pour euh, ziara annuelle euh, famille omarienne mm-hmm. demoon fa askan bu taxu euh, xaar ko yir ko foofu ci Louga mu nekk quelque chose à saluer nga xam ni tey mooy ministre maire Moustapha Diop accueillir ko accueillir bu bu doy muy xale yu bëri yu génn jëli président de la république yóbbu ko foofu ci ci famille omarienne donc suñu jugee foofu dañuy ñëw ci euh, li gën a li gën a fës tamit ci bitim réew muy euh, li gën a fës ci ci ci bitim réew mais balaa ñu dem foo demee bàyyi juste régie muy ñëwaat tuuti ci foofu ci Saint-Louis ñu déglu euh, ñi nga xam ñoo fekkee accident bi ñu ñëwaat tuuti ci li fa jot a xew tey ci suba par rapport ak accident bi dem euh, Demba. Mhm. Euh, gis nañ ne accident yi fi mu toll nii bëri na ci dëkk bi. Mhm. te fi yi toll nii amagum nañ ñaari accident yoo xam ne fi mu toll nii mhm. Assane bu baaxee mën nga balancer rek ñu ñu ñu joxoo ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu suivre mais est-ce que mën nga ñëwal tuuti ci ñi nga xam ne ne euh, par rapport ak accident bi nga xam ne am na tey suuf. oui donc balaa ñuy wax leen rek xanaa di euh, di massaw li nga xamante ne moom moo fi xew si biir semaine bi sax laay wax ndax soo xool dans la semaine ñoo am de cas yu mel nii. Mm. c' vraiment domage je peux dire aussi si côté population bi mais tamit côté gouvernement bi. mu mm. nekk lu ñu métti lu te loolu lépp la moo ko waral man selon mois je me ko que tey y' a beaucoup de choses yoo xam ne dafay manqué si côté sécurité routière bi surtout mais comportement aussi des loolu foo ñu wax si. côté état bi aussi na si part de responsabilité si côté infrastructure. Mm. man mii di voyager di dem presque fu nekk mhm. je rencontre beaucoup de difficultés tey dem dañuy dem rek mais dañuy sant yàlla wala ñuy ñaan rek ba bu ñuy yegg mhm. mais côté tali c' est un problème voiture yi aussi mhm. beneen problème la yooyu yëpp kon di ñaanaat rek képp ku si am wàll muy population bi chauffeur yi muy tamit état bi muy tamit yenn parti euh, privé et public yi ñu jàpp si bu baax a baax pour ñu mën a xam na la ñuy mën a saafara li ñu mel d' accord mais par rapport ak li ci par rapport ak li mu jot wax ci euh, ci ci commencement bi gis nañ ne actuellement euh, li nga xam ne ne mooy Macky Sall sorti bi mu dem def Euh, dem seeti ki nga xam ne ne mooy famille omarienne bi loolu euh, nan nga ko gisee est-ce que jàpp ngeen ni loolu noonu baax na tamit génn yu muy génn yooyu dem seeti kilifa diine yi waaw kilifa diine ne tamit euh, c'est normal ndax kilifa diine mën ne ne am nañ benn baat si dëkk bi mm. te sooy xool ndaw ñi sax ñu si bëri si ñoom la ñu gën a mën a sukkandiku mm. pour mën a def yenn mm. kon muy dem di seeti kilifa diine yooyu lu ko war la en tant que président en tant que président de la république mais itam lu ko war la pour mu ñu point de relais d'information mais aussi de condition yoo xamante ne ñoom mën nañ ko digal taalibe yi pour ñu mën a respecter euh, voilà kàddu yooyu et aussi les les restrictions. d'accord Assane bu nekkee euh, baax na foofu ci régie nga indil li nga xam ne mooy élément bi Boubacar Diarra wax euh, ñu mën ko ñu mën ko déglu. le temps que muy pare boobu mën nga ñëwaat ci beneen point. waaw le temps que muy pare ci élément boobu noonu. d' accord d' accord donc juste pour wax ci ci transporteurs yi ñoom ñi nga xam dañ dañuy dem euh, suba. Mm-hmm. donc euh, ci euh, conditions yi xam ne état bi tegal na leen ko fan US. Mm-hmm. donc muy 22 conditions ñoom d' accord ñu si déjà. Mm-hmm. nee nañ à part dem boobu noonu dañuy yokk paas yi donc ministre bi ba génn ci moom tamit antu ci ne. fu mu toll nii kenn warul yokk paas yi kenn warul def dara parce que amagul benn euh, loi bu wane ni war nañu yokk paas yi. donc loolu nekk benn coow bu jóg entre transporteurs yi ak euh, ministre. Euh, te transporteurs yi ñoom dañoo fas yéene grève fu mu toll nii. effectivement dañoo dañuy dañuy dem grève suba suba ci mardi. suba waa donc suba ci mardi mën nañ séentu yëngu-yëngu am ci ci ci wàllum transporteur bi. d'accord. lan moo gën a fësaat fi mu toll nii euh, d' accord donc dañuy dem foofu ñu war tuuti ci waa Pastef. ñoom ñi organiser da ngaa réeré ñu wax <laughs> donc ñu wax tuuti ci ci Pastef ñoom ñuy organiser démb démb dimanche ñu mm-hmm. organiser li ñu wax euh, cagnotte pour préparer seen nemmeeku donc ñu def benn mobilisation bu takku ba ñëpp ñi si participer suñu xoolee somme bi ñu jot dajale toll ci lu mat cent 333 million mm-hmm. mu nekk une première une première au mhm. Sénégal mais aussi en Afrique mhm. donc euh, li ñuy faral di gis mooy c'est les politiciens ñoom ñooy dem wuti les moyens indi jox askan bi mais bii pas askan bi ñoo dajaloo ku am téeméer cent francs mille francs dajale jox ko benn nit donc mu nekk une première et vraiment c'est quelque chose à à saluer mhm. à saluer parce que voilà peut-être dañu am benn du ñu gis ci ci ci ci ci ci benn politicien je sais pas peut-être mm-hmm. après dinañ ci dinañ ci yaatal tuuti. Mm-hmm. mais en tout cas c'est une première et vraiment c'est à magnifier. Mm-hmm. donc loolu mooy quatrième point bi ñu jeexal foofu ci Turquie. mu nekk benn euh, Séné une sénégalaise bu ñu violé foofu donc mu nekk benn tiis ñu benn compatriote bu nekk si foofu donc. état bi euh, jot na ci wax mais ñoom waa Turquie ba ñu li ñu jot a génnee mooy xale bu jigéen bi bi ñu violé amul woon euh, droit liggéey ñoom nag euh, kii di Aïssata Tall Sall jot na ci génn naqarlu xew-xew boobu te ñoo ngi xaar aussi des suites de de ce de ce viol mais ñoom bu ñu fonto amul droit amul droit liggéey rek nga violé yow kay loolu c'est c'est diamétralement opposé li li li am solo kay ba am solo yow mi ko nangul te xam ne ne amul droit liggéey mm-hmm. yow yaa ko nangul mais naa ne fi mu toll nii ñun ñun li ñuy toréere fii mhm. dafa dafa dafa bëri ci ñi nga xam ne dañu jógee à l'extérieur ñëw fi mhm. te de leer bu nekkoon doomu sénégalais moo ko def ab tubaab jàpp naa ne balaa muy balaa balaa muy kii dinañ ko tëj te li ci gën a li ci gën a doy waar foofu noonu li ci gën a doy waar mooy xale bi dañ ko téewoon police dafa dem ah, di porter plainte ñu téye ko mhm. parce que elle avait pas le droit dem di liggéey parce que am nee nañ d'après eux amuloon ay papier yu mat pour mun a liggéey alors euh, que moom moo ngi ñëw pour wax ne dañ ko violé mu nekk lu lu doy waar looy looy apporté ci loolu. loolu déjà c' est contradictoire parce que du moment où yow yaa ngi si benn dëkk amaana yàgg na fa diir bu mu fa def yëpp de liggéey mais est entreprise bu mu doon liggéey mën wax neen ne par exemple nekk woon si droit. loolu mm-hmm. c' une question bu ñu war a mm-hmm. deuxième question bu ñu war a mooy mu ngi dem di porter plainte mais ça n' rapport ak li nga xamante ne moom mooy euh, lu muy dundee foofu. Mm-hmm. parce que loolu benn acte la boo xam sélectionné koo xamante ne tey euh, lu muy ñëw nekk woon objectif am mais c'était mm-hmm. pour Euh, euh, comment dire porter plainte ki nga xamante moo ko def acte bu ñaaw boobu kon état yi war neen xoolaat bu baax a baax seen taxawaay mais c'est juste pour ñoom ñu camoufler seen bopp mooy comme li nga waxoon noonu tey tey gouvernement Sénégal war na jël ay matuwaay ci côté diplomatie mais aussi ci côté restriction yoo xamante ne dafay laaj ministère de l'intérieur ñu xam ne ñuy taxawee ñun suñu askan mais ñu nekk tamit fee Europe ñu xam tamit a xool beneen yoon incha allah effectivement xam naa ne ci demain wala mercredi incha allah jeudi incha allah ñu fas ñu fas se koo teg mais tey juste pour ñëwaat ci point boobu rek pour ñëwaat ci point boobu parce que defi wàllum transport dafa nekk lu lu yëngatu fan yi lu mm-hmm. yëngatu fan yi donc euh, comme ni que ni ngeen ko waxee tout à l'heure à moins d'une semaine ñaari accident et lu mat euh, cinquante personnes loolu lu ko ëpp ñàkk seen bakkan mm-hmm. donc je me dis que voilà dafa jot pour ñu teg dara ci table bi gis nga nit ki tey suñu dénkee dara nga dem ba xam ni yow munoo wala yoroo les compétences qu'il faut pour gérer secteur bu doon transport nga la tegal nga dem parce que aussi munuma concevoir la dernière fois à Kaffrine y a eu des mais tey la mesure yi kenn appliqué wu ko tey soo duggee ci tey la tataay gën a xat tey la transport bi gën a euh, salfañoo tey la dëkk bi gën a jaxasoo donc euh, voilà man je me dis tey ak budget bi ñu voté le ministre des transports mhm. budget bi dafa gën a sooy yor budget daaw d'accord mhm. soo xoolee au Sénégal c'est les mêmes tali ñoo fi nekk ba léegi mhm. c'est les mêmes voitures car rapide yi ñu fi ni ñoo fi nekk ba léegi y a rien qui a changé ay jamono indi nañ tata ne tata yi euh, day ñëw pour remplacer les cars rapides mais tata ba mu ñëwee dañ jox ko les personnes de droit mais dañu dem créer ay GIE maanaam tey benn fàll bi ba xam ne amoon na ñaari cars rapides mais ñëwuñu jox ko dañu dem créer seen GIE. Mm. mais fàll boobu ci car rapide la yaakaaroon pour pour pour pour yoon njabootam. mais mm. day continuer dawal ay ay car rapide donc tey mu nekk loo xam tey état bi dafa jot dafa jot dafa jot le secteur du transport ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax a baax. Mm. la dernière fois Kaffrine la la ñu wax pneu moo toj. Mm-hmm. tey la la ñu wax à saint benn mbaam moo doon traversé. bus yi di teggi camion bi dal ci kawam mais budget bi ñuy euh, dégagé les milliards yi nga xam dañ état da ko dégagé pour le transport anam fu mu jaar fan la dugg ak lan lañ ci def lan lañ ci def lu concret loo xam lii mën nañ mën nañ ne lii euh, fi lañ ko def pour rénover le transport pour changer le transport il absolument rien mm-hmm. donc il est temps il est temps que le président prenne des mesures mm-hmm. par rapport à ça c'est pas seulement le fait de sanctionner les transporteurs ou le mm-hmm. fait de d'amener des, des, il faut taper sur la table il faut dire carrément que non on va changer parce que dafa jot mënuñu concevoir même pas deux semaines cinquante personnes dee ci tey wax nga ko man yow amuñu oto mhm. suba su may dem tey Saint-Louis wala may dem feneen damay dugg ci biis yi laay dugg dem mhm. et on sait jamais donc tey li xew tey Saint-Louis xew barki démb Kaffrine mhm. mën na dal keneen ak keneen suba wala ginnaaw suba donc l'État on n'attend pas à que mu jol ay mesures pour wàññi ay ou je sais pas Il faut rénover, changer, donner les postes acquis de droit à des gens compétents pour nous mener, changer le, le système euh, du transport. Mm -hmm. Donc ça, c'était juste pour, pour, revenir un peu au point, point, parce que ça me tenait vraiment à cœur, parce que l'idée de mettre, il faut mettre trop. Euh, mm-hmm. Donc nous sommes tous des Sénégalais et c'est vraiment dommage de voir ça mm-hmm. euh, au Sénégal. donc c'est vraiment dommage donc juste pour pour terminer ci ci point boobu noonu avant avant may ma lay bàyyi nga nga dugal sa sa sa mm. donc euh, euh, revenir un peu sur le Nemmeeku Tour euh, qui qui se prépare à l'horizon mm. parce que les les partisans de Ousmane Sonko dégage benn somme important pour que mu mën a préparer Nemmeeku Tour mën ko réaliser dans dans les règles mm. donc c'était tout pour l'actualité de d'aujourd'hui je pense que loolu rek la ñu amoon ci li ñu mën a wax ci actualité bi tey <laughs> ah dina ay air rek. waaw day waaj a takk jabar comme ni ko waxee. parce que ah. bi daf ma daf ma choqué quoi parce que di boobu ba léegi dafa changé day wax di roulé. oui c' est normal effet mariage bi la quoi. effet mariage ah, day joué <laughs> waaw pression pression bi et tout. pression bi ah, bi et tout. xam nga de jigéen ci célibataire dem du du bul gaaw bul gaaw a beddeeku rek. <laughs> ayca bu ko ginnaaw bi Boubacar joxee li gën a fës ci actualité Euh, damay jaaree foofu ñu dugg li nga xam ne ne mooy euh, pub après ñu ñëwaat directement ci plateau fas yéene dalal ki nga xam ne mooy euh, Demba Camara fas yéene waxtaanee li jëm ci wàllu actualité di wax ne ne yow mi nga xam ne yaa ngi soog a jàpp li nga xam ne mooy suñu chaîne YouTube nekk en direct ak ñun di la wax ne fi mu toll nii Boubacar Camara nañu ñëw am léegi du yàgg dara mu fas ñu fas yéene waxtaanee li jëm ci wàllu entrepreneuriat rési bu baaxee mun nañ dem mun nañ dem pub Venez faire renaître votre sentiment d'admiration au salon de coiffure Les Doigts d'Or situé à Dakar Plateau. Bonjour, moi c'est Nader. Bienvenue à Salon Doigts d'Or Barbershop. Les Doigts d'Or, c'est trois grands salons avec le luxe et le confort requis pour le plaisir de son esthétique. les hommes, nous vous proposons des coupes de cheveux propres à votre style, des séances de massage, Les salons de Les Doigts d'Or, c'est une large gamme de services pour hommes et femmes. Salut à tous, euh, c'est Maya, responsable du coiffure Les Doigts d'Or Femmes. Je vous visiter mon salon. Variant entre. On fait dans notre salon euh, la coiffure, euh, l'esthétique et l'anglerie. Les Doigts d'Or C'est aussi deux grands salons exclusifs pour hommes situés à 70 rue Carnot et à la rue Ngalandou Diouf, Dakar Plateau. Pour les femmes, avec les doigts d'or Baïmaya vous donne rendez-vous à la rue Vincent. Les salons de coiffure Les Doigts d'Or avec les frères Nader et Shoki, c'est plus de 30 ans d'expérience pour le plaisir de rendre belle votre esthétique. Pour toute information supplémentaire,

ayca mu ngokk ginnaaw bi ñu euh, jógee fi nga xam ne ne mooy euh, passe de pipe damay jaaree foofu remercier nos partenaires ku mel ne euh, Habib cosmétique Habib cosmétique nag yéen sa jëmu bopp xam ngeen ne Habib cosmétique moom du gan ci kër gi. ba tey moom ñu koy jaajëfal la fekk mu ñuy euh, topp ci li nga xam ne mooy Café Show Plus di jaajëfal euh, Baye Mor alimentation générale la yor moom mi ngi nekk fii ci Rufisque di di jaay lépp loo xam ne ne day jëm ci ay lampadaire en même temps tamit jëm ci ay vaisselle lépp matériel boo xalaat rek moom ci jëm boppam dinañ ko jaay di leen ñëw ci fin bi jox leen numéro ak li nga xam gën a yaatal ci détail ci lu jëm ci partenaire ci li nga xam ne euh, moom la ñuy jaay. Mm. ci kaw loolu tamit dañuy jaaree foofu daral ki nga xam ne ne mooy ba Camara parce que Demba Camara fi mu toll nii gars yi ñu ngi réagir partout. effectivement <laughs> parce sa sikkin bi xaw ma nu mu demee noonu quoi. Ah, hmm. sikkin mu célibataire la rek. <laughs> mais gars yi da leen célibataire waru am sikkin quoi. Ah, non peut-être yàlla moom wóolu quoi. Ah, yàlla wóolu wóolu. moo tax mu dégg la ko daf baax ay ca ko dañuy dooree <laughs> dañuy dooree waxtaan bi jëm ci wàllum entrepreneuriat est-ce que mën nga ñu ñëwal tuuti ci li jëm lan mooy rôle entrepreneuriat en fait. voilà donc merci beaucoup déjà si question bi. Hmm. mu nekk loo xam ne dafa am solo lool euh, le role de l'entrepreneuriat. entrepreneuriat déjà war neen laajte exactement c'est quoi l'entrepreneuriat ndax nekk na lu gën am solo et tey suñ ko doon xayma si lu terre à terre mhm. moom mooy le fait de trouver un problème mhm. et d'essayer d'apporter une solution d'accord que ça soit si bi que ça soit de manière voilà nationale fépp fu mu mënti demee mhm. loolooy tey l'entrepreneuriat de prendre ses euh, son destin en main d'apporter quelque chose mais aussi jéem a jàppale communauté bi si côté réduction du chômage mais aussi apport benn besoin boo xam ne population bi euh, soxla nañ ko lool. donc loolooy rôle entrepreneuriat. voilà par rapport ak euh, société bi. Mm-hmm. par rapport ak tey de renommée de renommée internationale donc mm-hmm. voilà. ci côté communautaire bi. que ça fait en voilà parce que déjà si côté communautaire bi il faut ñu xam ne tey entrepreneuriat y a d'abord l'entrepreneuriat social. te tey quand on parle de la communauté. Mm-hmm. tey nit ki à chaque fois tu dois te la question à savoir yow lan nga mën a njëriñ sa réew. lan nga mën a njëriñ sa communauté exactement parce que dañ koy gis fépp par exemple si benn exemple terre à terre côté euh, salubrité bi da ngay gis koñ boo dugg peut-être dina am saleté wala tout ça mm-hmm. te après on a tendance a dire que non état bi moo liggéeyul mm-hmm. mais tey état bi ñan la état bi ñun la mm-hmm. tey da ngay gis par exemple balaa ngay génn sa kër yow sa néeg njëkk ko defar nga defar ko génn après ñëw sa kuuru kër su amee lu tirim wala dara ñu participer defar ko nga génn sa buntu kër soo fa gisee mbali wala dara nga defar ko soo ko defaree tey au fur et à keneen su comporté à ce point tey koñ bi mën ne ne setal nañ ko suñu biir mais après nag moom moo lan mooy ñëw organisation communautaire boobu foog mu am kenn wala ñaar ñu jël responsabilité bi tenir le projet entrepreneuriat social ba permettre tey koñ bi fépp foo mënti dem ñu mën ko setal fépp foo mënti dem participer ci côté éducation santé at domaine bu mu mënti doon donc te loolu tey rôle entrepreneuriat dans le volet euh, communautaire d'accord impact numérique réseaux sociaux côté jeunesse bi mm. es ce que mun nga ci ñëw tuuti voilà donc côté numérique bi aussi danoo jour tey mën ne ne numérique bi mu mu ëmb lépp mm-hmm. tey lépp loo mënti gis numérique bee ko ëmb mais surtout les entrepreneurs doivent savoir exactement comment utiliser ces outils technologiques que ça soit si volet euh, numérique bi mais tamit surtout les réseaux sociaux parce que da ngay gis benn démb mooy tëb commencé bëgg jaay wala mooy bëgg dugg ci entrepreneuriat bi mais du xam exactement comment faire pour trouver ses cibles sur les réseaux sociaux mais tamit nan nga mën a def pour fair passer ton message mm-hmm. soo ko jëlee ci côté Instagram y des manières de communiquer côté Facebook il y a des manières de commu communiquer côté euh, LinkedIn Twitter donc yooyu rek laa cité comme exemple mais bëri na. Mhm. donc côté numérique bi aussi il y a beaucoup de il a beaucoup d'outils yu ñu war a utiliser te soo ko jëlee exemple euh, Google Workspace rek. Mhm. tey da nga siy am Drive da nga siy am Google Form Google Sheet. yooyu noonu yëpp tey dans les entreprises et voir ñi nga xam ne dañoo branché carrément dañ siy gën a mën a génn. Mhm. mais par rapport ak liggéey bi dañuy mhm. gis ne y a la part des personnes yi xam ne côté entrepreneur euh, côté communication bi mhm. gars yi valoriser wuñu ko ni ñu ko war a valoriser parce que tey nit ki page yooyu ngay développé euh, yow ñu koy développé dafa am temps bi muy laaj am xalaat bi muy laaj am inspiration mais dañuy gis ne nit ki bu lay fay lam lay fay sax da koy da koy néewal en fait est-ce que côté boobu noonu la mën nga ci ñëwal tuuti waaw voilà parce que ño ñu koy def c'est parce que dañoo xamuñ njëriñu communication. parce que il faut savoir de nos jours avec euh, le monde ni avancé. il y trois points yoo xamante ne soo si faussé benn rek je peux dire que tu peux tu passes carrément côté. déjà c'est là il y a l'anglais l'autre c'est les outils informatiques et l'autre c'est la communication en tant que telle. moom moo lay permettre même su nekkul dans l'entrepreneuriat pou mu mënti doon. soo maîtriser wu ces trois da ngay am beaucoup de beaucoup de difficultés. Mm-hmm. donc communication tamit du loo xamante ne dañ koy euh, dañuy ñëw rek di ko def. Mm-hmm. dañ koy jàng am na ñoo xam ne yàlla may na leen peut-être la voix. Mm-hmm. wala mu may leen ñu nekk à l'aise devant public wala truc comme ça. mais la manière de communiquer aussi ça y joue. comme ni ñuy wax tey la parole souffre de quatre mots. de la dire là où ne faut pas la dire de la dire quand il ne faut pas la dire. de la dire comment il ne faut pas koy tënk tey si wala muy tey euh, wax. wala lépp luy jëm si wàllu communication dafay am ñeent feebar mm-hmm. tey wax fi ñu ko war a waxee mm-hmm. wax nuñ ko war a waxee mm-hmm. wax ki ko war a wax mais tamit wax ñan lañ ko war a wax donc loolu noonu yëpp mooy regroupé waat communication soo ko maîtriser rek sa cible da koy am sa communication dina jàll nu mu waree ak timing bi nga koy def ak heure bi nga ko war a def ak yooyu noonu yëpp c'est à tenir en man tey sama business loolu jàppale na ma si lu bëri tey au début xaw ma ko woon te mu ngi mel ni tey comme communication yi nga war a def y des heures yoo xamante ne say cible dinañ gën a mën di connecté wu. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp da nga ko war a xam. Mm-hmm. yan terme nga war a utiliser. Mm-hmm. pour mën a jouer un peu si tendance Sénégal xam nga dem ne dañoo xaw a immature tuuti <laughs> <laughs> yooyu yëpp foog ñu koy utiliser waale pour mën a jàllale sa produit. d'accord mais gis ne jamono ji sur les réseaux sociaux euh, gars yi nga xam ne ne ñoo yor yenn page yi dañuy gis ne communication dañ ko faral euh, ci ci ci ci indi yi nga xam ne des pages. ay textes yoo xam ne yow da lay leer na am na message yu bëri yu ci lancé mm-hmm. euh, communication boobu noonu xam ne jamono ji indi nañ ko yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci domaine boobu noonu la ko gisee en fait. bon communication boobu je peux dire c'est trop chargé au fait mm-hmm. parce que quand on dit on doit communiquer waruñu jël lépp lépp lépp di ko chargé te il faut jouer aussi beaucoup plus sur le visuel de nos jours da ngay gis benn image wala vidéo teaser bu ndaw mm-hmm. qui parle beaucoup plus que le texte te gars yi ñun suñu temps bi may ñu ko ñuy dévoiler ay textes yu dul jeex mais benn simple image peut euh, peut faire passer benn dix mille messages en fait. comme dañ naan une image par exemple quatre mots par exemple wala jeu yooyu noonu. Mm-hmm. mais c' est la réalité qui est là. Mm-hmm. malheureusement ñu bëri comprendre duñ ko ñoom pour ñoom image ngay posté wala def benn texte bu gudd. mais gars yi du ñu am temps wu lire boobu noonu. mais c' est l' image attire beaucoup plus tey l' attention euh, des internautes l' attention des gens qui utilisent voilà tout ce que mën euh, euh, par rapport ak ki nga xam ne ne moom dafay yëngu ci wàllu entrepreneur. Mm-hmm. yan. qualité la war a mun a am en fait. ouais ça c' est point boo xam ne suñ doon lim qualité du jeex mais dañ si tënk am na yoo xamante ne c' est la base. Ah, parce que voilà nee nii dañ naan da ngay dugg si entrepreneuriat juste comme ça mais entrepreneuriat am na ñu ngi si war a duggee. te am na ñoo xamante ne mën na nekk entrepreneuriat entrepreneur mais lu si rare mooy est ce qu'on peut terminer entrepreneur. d'accord ça c'est une question lu ñu naan tout le monde peut être entrepreneur mais tout le monde ne peut pas finir entrepreneur. d'accord la moo koy waral tey c'est ce sont ces qualités nga xam ne nit ki da koy tënk. tey suñu doon wax ci qualité yi am man je l'ai je l'ai dit tout le temps c'est les 3 P et le D. Mm. le 3 P déjà c'est la patience la persévérance le passion de bi da moom mooy nekk la discipline. exactement surtout discipline bi discipline bi boo ko boo ko amul mun naa ne mm-hmm. entreprise bi ñay ñi ngay liggéeyee sax duñ la respecté. duñ la respecté. te li nga bëgg li nga bëgg def doo ko mun a def. Mm-hmm. li nga njëriñ bi ci bëgg am munoo ko am en fait. munoo ko am parce que gis nañ ne par rapport li jëm ci wàllum entrepreneur. Mm-hmm. da war a am benn benn benn charisme bi en fait. benn responsabilité boo xam ne da koy dégager. ci ñi nga xam ne ñoo lay xool en fait mais da ngay gis ne tey ñi nga xam ne teg teg teg entreprise. comme boo ñëwee xëy teg entreprise yan conséquences moo la si mën a fekk te amoo papier yi nga xam ne moom nga war am. voilà yooyu daan yu bëri mën na la si fekk ah. même même bu nekkul daan bi sax yow personnellement pour nga développer loolu ça sera un problème parce que déjà côté partenaire côté collaboration. Mm-hmm. dañuy bëgg faral bëgg di liggéeyal koo xamante ne moom dafa légal. am na ay papiers yépp sur table donc là c'est un point daan yu la si mën a fekk nag bëri na soo ko jëlee si cadre euh, impôt et wala APEX et tout ça yooyu yooyu dafay ñëw parce que da ngay gis koo xam ne créé na entreprise déclaré wu ko yooyu tout ça di def ay chiffre d'affaires tey dañuy fàtte ne gars yi ñoom dañuy suivre dañuy naan dañ lay topp ba ba nga sës. Mhm. tey soo demoon après di ko déclaré. Mhm. dañuy def des enquêtes xool exactement lii depuis kañ la ak lan nga si jot a def te bu boobaa dañ lay regresser carrément sa entreprise. muy daan bu rëy pour pour ñëw foofu noonu fait bon là je pense que secteur informel bi. oui surtout mhm. surtout secteur informel bi et gis naa ni tey tout à l'heure yaa euh, avec euh, le numérique. nit ñi tey ñoo ngi ci la vente en ligne. par exemple. Mm-hmm. nit ñi si lañ gën a gën a gën a gën a gën a bàyyi xel. waaw mm-hmm. ñii nee nañ ils n'ont pas de temps donc moi je préfère tey ma toog au bureau. Mm-hmm. prends mon ma benn article en ñu livré ma ko vite fait. tey côté côté côté côté daan est ce que ñooñu dañuy déclarer seen entreprise ou du nekk côté parce que gars yi dañuy tey l' entrepreneuriat le business. vous voyez un peu tey du ma ay entrepreneur leen. mais je dirais plutôt que ay businessman leen. parce que ñoom dañuy mettre en place benn produit am si lu ñu siy am jël si lu ñuy gagné après le ñu delloo ko par exemple ku leen jox marché tout ça. donc là c' est un peu différent parce que mm-hmm. l' entreprise tey sooy wax côté entrepreneuriat day nekk structure bu légale structure boo xam ne dafa tegu mm-hmm. donc côté informel boobu tamit si entreprise yi da nga koy gis. Mm-hmm. et là on peut. tolérer parce que même au niveau supérieur dañ la koy tolérer benn un an wala deux ans boo xamante ne là c'est pour mieux t'insérer dans le milieu professionnel. jéem a xam tamit wàcc sur le terrain comment ça se passe mais au delà au delà de ces deux ans. day nekk beneen souci su fekkee da nga bëgg a continuer ci informel boobu. c'est comme nga bëgg a mettre en place benn association. après nga bëgg a transhumer dem ci ONG. association bi dee pour nga nekk ONG. koo xamante ne jeune la nga leen accompagne ñu ngi koy gis na mu ngi def liggéey bu am solo ak projet bu am solo avec euh, le foyer des jeunes yu mu bëgg implanté si ci département Sénégal yëpp yëpp projet bi lancé nañ ko te mu ngi am solo di ko ñaan mu gën a disponible mm-hmm. su disponible jeunes yi dinañ ko gën a mën a ñeme dinañ si mën a jàng mm-hmm. y a des structures aussi comme DRT ANPEJ ADPME mu nekk des partenaires techniques mm-hmm. am ne soo demee dinañ la orienter dinañ la woon tamit yenn yoon yoo xamante ne mën nga ko jaar tey ba am li nga amal sa bopp. d'accord par rapport ak ci yoon yooyu dañuy gis ne euh, li nga xam ne mooy MTIC MTIC boobu moo xam ne yéen a ko mm-hmm. yéen ko taxawal. loolu est-ce que mën nga si ñëwal tuuti ci entreprise boobu. voilà donc euh, muy MTY agency donc Meet the Youth à la rencontre de la jeunesse dañ ko tuddee. mu ñu formé ko par trois jeunes. trois jeunes yoo xamante ne muy man yaa aussi Yankhoba Diop que je de passage ñoom déjà ñu ngi o bureau et Toumani aussi Badiane kon actuellement da ngeen nekk en place teg seen entreprise di taxaw effectivement donc ñu ngi nekk en face juste euh, une université Cheikh Anta Diop donc ñu ngi foofu au niveau du siège su ma jógee rek foofu laa war a dem nii directement donc bu ñu koy créer tey c'est trois jeunes yi nga xam ne ñoom amoon nañ déjà leurs entreprises mm. man mon propre euh, sama propre entreprise c'est DTL Business Networking qui évolue formation auto-école mm. série, mais aussi événementielle. Il y Yanko Diop aussi qui a mis en place euh, la RNTV, la révolution numérique, première chaîne de la révolution numérique qui parle que de l'entrepreneuriat en ligne tout. Et il y a Toumani Badian, l'autre, a mis en place son entreprise qui s'appelle Toumiprod. donc c'est tout ce qui est transformation des produits euh, locaux et tout si lay yëngatu. kon donc donc teg yooyu yëpp. c'est <laughs> une voilà et lu tax ñu gën koo mettre en place parce que dañ doon am habitude ah, di tase si ay forum tase si ay panel et tout yàlla comme si daf ñu boole mais par rapport ak yooyu noonu bëgg nga ñëw ci quoi en fait voilà formation yi comment ça se passe en fait voilà effectivement léegi ñu doon daje nag à chaque fois ñu dem ba xamante mm-hmm. suñ tasee si panel wala dara dañuy toog ñooy bokk table di waxtaan di échange ñu ne maintenant ku nekk am na benn affaire mais pour gën a indi benn doole pour la jeunesse mm-hmm. dañuy jéem a créer benn bu gën a solide ensemble. moom mooy tey MT agency la maison maire moom lañ ko tuddee. les serviteurs de la jeunesse. boo xam ne day gën a yaatu avec beaucoup de domaines. beaucoup de collaborateurs pour ñu mën a servir la jeunesse. et notre but ce n'est pas seulement ici à Dakar. Mm. c'est d'aller à la rencontre de cette jeunesse qui se trouve par exemple à Brooklyn euh, euh, nu mu tudd waay euh, Koumpentoum par exemple. amuñu opportunité wala zoti yooyu nga jógee ba Koumpentoum. eh waaw c'est que dama mën tooñ naan ko kenn jaawale vous <laughs> donc loolu pour jàppale jeunes yooyu noonu la ñoom amuñu outil par exemple fii Dakar mën na ne am neen outil yëpp tout ça mais ñoom peut-être bëgg neen évoluer mais xamuñu ñuy def donc moo tax ñuy gën a focus ci ñoom te alhamdulilah l'année passée def neen beaucoup de réalisations beaucoup de voyages te jeunes yooyu ñu ngi commencé tamit euh, gis seen bopp bu baax a baax d'accord par rapport ak séminaire yi mhm. mais juste côté accompagnement en fait mhm. tout à l'heure évoqué nga euh, le ministre de trois personnes yoo xam ku nekk dafa am domaine am. mais ngeen boole def benn euh, pour mu gën a yaatu. mais est que côté accompagnement. Euh, le ministère est là ou l'État est là. côté accompagnement je peux dire que au contraire c'est que ñoo si gën a def sax li nga xam ne mooy suñu doole. Mm-hmm. du moment où par exemple État bi ñoom dañuy bëgg tamit di si xoolaale seen. Euh, seen visibilité wala tout ça suñu gisee ne benn citoyen lambda nga mm-hmm. yaa ngi góorgóorlu mais duñ la jox benn euh, gëdd boobu noonu mm-hmm. mais par exemple ak ñun alhamdulilah parce que nous sommes des jeunes yoo xam ne on n'attend rien de l'état te lu ñuy def dañuy def tout pour impacter parce que c'est comme John Fitzgerald Kennedy doon wax don't ask what the consequence do for you but ask what you can do for your country. demande bul laajte tey réew bi lan la war a defal mais xoolal loo mën a apporter réew bi te lépp loo mënti def rek àdduna karma la mm-hmm. donc réalisation yi ñu doon defa xol mm-hmm. après y a des structures de l'État y a des entreprises privées tamit ñu commencé di gis suñu réalisation di ñëw di ñu si jàppale sur tous les points te alhamdulilah mu ngi sox daal ndànk na par rapport à vos déplacements yi nga xam ne moom ngeen am euh, au niveau des régions mm-hmm. euh, comment ça se passe et yan yan liggéey ngeen fay def ak gars voilà donc c'est ça tourne beaucoup plus sur les sur les aspects euh, voilà des coachings mm-hmm. comme tey prise de parole en public mm-hmm. leadership anglais des affaires et tout ce qui est entrepreneuriat accompagnement aussi sur la gestion des projets mm-hmm. et en contre en contrepartie dinañu wax ne ñun. lu ñuy xaar si yéen mooy ngeen mettre benn chose sur la table on travaille ensemble mu nekk atelier ñu mën si njëriñu parce que tey ñun xooluñu si par exemple début bi côté xaalis bi mhm. mais c'est xool tey impact bu ñu mën a def sur la population tey tey ay association peut-être ñoo ñuy woo benn yankooba mooy xam ku dëkk par exemple Mbour yor association mu gis ñu ñuy def mu ne ah ñun kat bëgg neen ñi ñëw accompagne ñu donc ñun on se déplace ñu teg lépp sur la table et on fait les choses. d'accord mën nga ñëwal tuuti ci euh, bi nga xam ne ne moo nekk professionnel et citoyen. voilà parce que loolu dafa nekk thème boo xam ne ñu bari surtout ñun jeunes yi dañ koy négliger on se dit que mënuñu carrément insérer insérer aussi volet professionnel bi mm-hmm. mais loolu du fottu. état wala du faute keneen mais faute ñun la parce que du moment où la vie associative dafay participer bu baax ci sa formation parce que la formation et les compétences ce n'est pas seulement l'école maison l'école maison hmm. mais tey y a des associations dans les quartiers y a clubs dans les écoles yooyu noonu dalay permettre vie associative nga gagner beaucoup plus d'expérience beaucoup plus de compétences ba nga xam ne tey ëllëg ci côté leadership côté sens de l'organisation yenn talent yi nga war a amee tout hmm. état bi su la jàppalewul yow di nga mën a xam nooy tegee sa projet parce que sooy xool dans les associations et tout c'est les mêmes postes en général yi ngay gis dans les euh, entreprises tout. Mm-hmm. da lay nga pratiquer li nga doon gis. ba tax na ëllëg même entreprise su la soxlaa yow di nga benn background euh, compétence bi toog ñoom bu ñu mën a soxla mm. pour ñu mën a avancer donc encore une fois jeunes yi neen gën a suux si vie associative bu ñu ne perte y a mm. te li nga siy jàng yow yaa xool nag maintenant si tu nga lance message bu ñuy lancer et explication vie associative ni muy contribuer bu baax d'accord par rapport inconvénients yi nga xam ne moo nekk ci biir entrepreneuriat est-ce que mën nga bu ah, ah, baax cas je me dis ñu bëri mere neen ma pourquoi je dis mere parce que entrepreneuriat mooy li nga xamante ne day ñëwaat rek si discipline bu ma la doon wax ci qualité yi hmm. ndax su fekkee yow am nga discipline entrepreneuriale hmm. yu bëri yaa a des mais aussi y a beaucoup de difficultés hmm. tey inconvénient muy lan doo amati temps yu bëri pour par exemple dem defi sport wala ànd ak say xarit et tout ah, ah. déjà yaa ma koy wax ah, dañ doon tase saal mais léegi toog presque trois mois xaw ma lan gisoo leen ma sax saal donc tey c'est ça mm-hmm. donc parce que soo amee objectif yoo fixé w dans la vie il faut rester focus mm-hmm. nga concentré wu là-dessus loolu benn point la beneen point bi c'est Euh, comment dire l'influence de la famille l'influence sociale boobu noonu et familiale hmm. dañ siy jouer lu bëri peut-être doo amante temps dem ay tour hmm. wala ay ngénte wala affaire yooyu noonu yëpp duñu comprendre comprendre da expliquer ba bëgg a dee man laataa ñu may comprendre da ngay ree ba tas vous voyez mais après au fur et à mesure c'est juste les résultats qui vont euh, prouver tout cela hmm. le plus ngay dem def résultat ñoo xam ne ah kii kat si la nekkoon l'autre tamit si côté peut-être relation lay doon mu nekk amical ñu bëri duñu la comprendre bu côté amical den naan da nga jël sa yoon bopp bu dee couple par exemple mën ne ne yow amatoo sama temps wala da nekk si lu la neex hmm. yooyu noonu yëpp daf siy joué te bëri na inconvénients yi hmm. mais du moment où on reste focus hmm. au fur à mesure on avance seuls les résultats vont parler dans le futur effectivement mais mais ci lan euh, nga xam ne ne moo jëm ci wàllum entrepreneuriat hashtag motivation face aux caméras motiver ñi nga xam ne ñoo lay suivre actuellement euh, jeune par exemple man par exemple euh, ma bëgg entreprendre si benn domaine. Mhm. donc quels sont les conseils yi ñuy jox exactement. Mhm. pour voilà pour mieux euh, démarrer. effectivement donc euh, la jeunesse message bu ma la ñuy njëkk a wax muy l' entrepreneuriat de nos jours c' la base qui te permet tey nga am sa benn autonomie. Mhm. sa benn base boo xamante ne tey nga mën a doxal sa book te doo yaakaar si kenn. parce que dañ koy wax soo yaakaaree si kenn rek à la fin day nekk yeblu. te du moment où on vraiment se dans l' entrepreneuriat ngelawaay xool. noo leen amee connaissance yi dans le milieu bi nga bëgg a entreprendre loolu am na solo te soo tamit y a la passion qui est jëm leen bëgg xool lan ngeen war a def mais en même temps jëm leen découvrir seen bopp bu baax a baax muy tey retour au sources dafa am solo parce que dafay participer bu baax sa background dafay participer bu baax a baax tamit nan nga mën a wéeroo tey say valeur say principe xam ki nga doon dafay participer bu baax si milieu bi nga war a yëngatu mais tamit am discipline organisationnelle tey chaque jour que jëfee jéem leen xool lan ngeen mën a def chaque jour que jëfee jéem leen planifier activité yépp yi ngeen xamante ne moom ngeen mën a def pour mën a atteindre seen cible en tout cas dans l'entrepreneuriat si vous voulez vraiment y réussir donc ayez la confiance en soi et n'ayez pas peur de faire des erreurs au début c'est de l'investissement au début c'est de l'investissement sur soi mais aussi financier mais au fur à mesure tu vas voir les résultats en tout cas l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse mais pas n'importe quelle jeunesse une jeunesse engagée cultivée douée de caractère noble et d'ambition élevée et si vous y croyez par force vous allez y réussir donc c'était le message que je voulais faire passer. Merci. d' accord moom def na benn commentaire ci suñu chaîne YouTube nee na moom serviteur yi la bokk loo koy wax. <laughs> effectivement donc Toumani moom mooy sama beneen collaborateur bi y' a Toumani Badiane que je salue de passage. Mm-hmm. et de Yankoba ñu nekk des jeunes yu dynamique. Mm-hmm. franchement dama leen naw parce que li ñuy def pour la jeunesse. Mm-hmm. c' est extraordinaire man je peux dire que xaaj bi xaaj bi xaajaat bi defuma ko. maa ngi lay nuyu wax ne maa ngi ñëw léegi nga préparé ma ndekki bi ñuy waaj a travailler sur des projets déjà 15 heures on doit travailler sur des projets yu war a def au niveau de Ziguinchor mm. avec le festival euh, de la diaspora Nikin mm. donc des jeunes entrepreneurs yu partout dans le monde mm. donc on est partenaire dessus et on doit travailler mais mais xam budget 2023 di ngeen ci boole ah effectivement que ndaanaan moom ah comme que ndaanaan yee fi nekk ah loolu moom dinañ def tout ba xool nu ñu mën a travailler ensemble et ça sera un plaisir vraiment en tout cas merci beaucoup di nuyu tamit un jeune entrepreneur moom a solal muy ah, Moussé moom mu ngi nekk Petit Mbaaw mm. donc sama koñ daf ma gis macha allah ñuy yaatal mu ne waa ah, moom si côté couture lay yëngatu mu ne waa lii moom damay participer man tamit si lii parce que entrepreneur nga mm. entrepreneur la leen wax ne rek képp koo xam ne bëgg nga si tenue yu rafet yi mm. donc soo ma contacté wala tout ça donc c' est le 77 sama numéro 635 94 00 77 635 94 00 soo ñu contacter si côté orientation loo bëgg ñun di waa MT agence dinañ si taxaw bu baax a baax. d' léegi nag da ngay tàggatu mbokk téléspectateur donc encore une fois jaajëf ñu ngi la ñuy jaajëfal bu baax di leen waxal alhamdulilah di leen wax merci aussi si seen teewaay di nuyu famille bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi ñuy suivre di leen wax ne. un rendez-vous au sommet donc c'était ça le message mu nekk mu nekk moo boo xam ne ni ñun suñu jëm bopp dañ koy faral di wax tout le temps mhm. parce que dañu gisee suñu benn copain tey mu jékki-jékki naa booy léegi-léegi maa ngi dem ci entreprise ne quoi ah, rendez-vous au sommet voilà mu nekk loo xam ne ne moo buñ bëgg la te mhm. dañ ko gëm en fait euh, Boubacar lan ngay wax ci Demba par rapport li ñu jot a balaa nga jaaraale foofu tëj macha allah macha allah parce que voir un jeune entreprendre et voilà ak li mu jot a wax yëpp si c'est à saluer c'est à saluer parce que tey suñu xoolee ñu wax tout à l'heure on doit pas attendre de l'État à que mu ñu defal mais ñun les jeunes ñun ñoo war a lancé wu déjà après état fekk mm-hmm. effectivement bu ñu xaar ne état rek la ñuy xaar état la ñuy xaar nañu commencé déjà après état su ñëwee baax su ñëwul on va essayer d'y aller et mm-hmm. je pense que ku jéem ku ne xam nga di nga gis résultat et vraiment c'est c'est à saluer te jàng naa ci lu bëri xam naa su ma paree damay lancer benn kii bu ndax ci suuf <laughs> en tout cas c'est c'était un plaisir sama euh, xarit ak monsieur l'entrepreneur <laughs> donc euh, di remercier nos internautes ci euh, temps bi ñu bi ñu may saay su ne ñu ñëw pour jox leen les actualités mm-hmm. di leen jox daje jeudi Mhm. ak euh, d'autres actualités de de la semaine. d'accord merci beaucoup et bon début de semaine à tout le monde. d'accord di jaajëfal ki nga xam ne mooy Toumani Badiane mu ne le changement c'est la jeunesse effectivement le changement c'est la jeunesse donc jeunesse bi yéen ñi ñu suivre euh, fexe leen am fulla seen bopp am fayda seen bopp te xam li ngeen bëgg xam fi ngeen bëgg a en même temps tamit euh, dem ci côté entrepreneuriat parce que c'est important ngeen balaa moo jëm ci wàllum entrepreneur entrepreneur entreprendre a réussir dans la Euh, jaajëfalee ñi nga xam ne ñooy nos partenaires euh, ki mel ne euh, ki nga xam ne mooy Habib Cosmétique Habib Cosmétique moom moom duma ma taay di wax ci moom parce que produit bi nga xam ne ne day jëm ci wàllum développement jëm ci wàllum développement développement corps demal rek. waaw baax na demal rek am problème après naa la jël si suuf. Habib cosmétique day jaay tout ce qui produit boo xam ne day développé sein ak fes en même temps développé li jëm yaram gis nga gars yi dañoo comprendre mais su ma koy wax bu ma réyee waa Régis dañ may dañ duñu comprendre ko en fait mais affaire bi dafa garaaw bu ma gàtt. mais Habib cosmétique di nga koy jaajëfal euh, di wax ne képp ko xam ne soxla nga ci produit yooyu surtout maa vous les femmes góor ñi nag taxawee rek doo leen di leen développé dara bàyyi leen saa nekk yi développé parce que léegi gis nañu euh, góor ñi léegi dañuy développé lii nekk ci ginnaaw parce que gis nañu tubaab bi ñu boobu ñu ngi leen di jaajëfal Habib cosmétique tout ce qui produit femme donc mun ngeen ko wax ci 76 589 13 vingt 29 donc ku koy Habib cosmétique ci kaw loolu damay jaar ci bàyyi euh, Morphal alimentation général euh, moom day euh, jaay lépp lu jëm ci wàllum matériel boo xam ne ne ci wàllum kër la jëm ci wàllum maçon yi nga xam ne dañuy soxla ay outils yoo xam ne dañuy mën a daaj yooyu donc lépp loo xalaat ci matériel wàllum électronique rek dañ amul mais lépp loo xalaat ci matériel boo ko soxlaa mun nga leen woo ci 77 641 24 31. 77 641 24 31 boo leen wooyee dañ leen euh, mën a euh, jox ci euh, li nga xam ne ne mooy matériel yi ngeen soxla ci kaw loolu tamit damay def bi dédicace à Anta Anta Thiatou Falilou madame Samb heureux ménage à vous Anta sëy bi yàlla na barke gis nañ image yi Murit cest à ñu ngi leen di jaajëfal yow ak monsieur joyeux anniversaire par prolongation waaw mm-hmm. ah, parce que anniversaire Thial na. dañuy def prolongation. sa <laughs> anniversaire bu ko fàtte aussi ah. waaw <laughs> ah, ah, waaw am na solo. <laughs> am na solo waaw bu dee ñëw sama anniversaire donc Fatou joyeux anniversaire par prolongation mi ngi nekk boulangerie la Kajoor foofu ci Kër Mbaye Fall en même temps déjà ak euh, Soxna déjà ak Soxna. maa ngi leen di jaajëfal jëfal ñoo ñun samay jumelle lañ donc ñoo bokk même date d' anniversaire donc tey la sama anniversaire joyeux anniversaire à moi même euh, yéen ñi nga xam ne yéen a doon souhaité tamit joyeux cetera yéen ñi ma souhaité joyeux anniversaire yëpp maa ngi leen di jaajëfal waa Kër Ndaanaan gis naa taxawaay ci li jëm ci anniversaire bi cadeau yaa ngi ñëw maa ngi gis ay wéef yi toll nii te wéef xam naa ne bu may génn sa di ma laaj <laughs> ay kaas nga may jox <laughs> léegi ci kaw loolu tamit damay euh, jaajëfal ki nga xam ne mooy Souleymane Ba actuellement boo leen gisee les images yi ñuy dugal sur nos page Facebook Souleymane Ba moom mooy mooy def photo yi donc ñu ngi koy jaajëfal en même temps di jaajëfal waa Rési Assane ak El Hadj euh, di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ci biir Keur Ndanane TV di remercier nos partenaires et vous qui nous suivez di leen wax on se dit rendez ba jeudi incha allah di leen jaajëfal peace